fii ci quartier Mandiaye jóob bu Thiaroye sur foofu la askan wi daal di gis essence muy génn ci suuf si ci benn kër foofe nag teen ba fa nekk ak foos yi yépp fees nañu essence. te fuite bi du woon dimanche la. fuite bi le la woon septembre 2023 dimanche le 15 octobre. am na benn teen bu fa nekk teen boobu ma ne la ak fosse septique yi lépp essence. biñ ko wax xaysa li ñuy wax mooy ne lii du ay fuite leen essence bi buñ ci uutee tuuti buñ génnee sori ko dem ko sori hmm. bu nu sottee bu buñ taal dafay tàkk buñ sukkandikoo ci moom Mamadou Fall incident biile ñu ngi koy signalé depuis ñaar fukki fan ak juróomi ñett ci weeru septembre bi ñu weesu te loole nag buñ sukkandikoo ci seeni kàddu dara waralu ko lu dul ay tuyaux société africaine de raffinage SAR yi nga xamante ne màgget nañu. maanaam tuyaux yi nga xam ne moom la waa SAR traversé yu jugee ca ca ba dem ba fi nga xam ne mooy. bel ak Yaraax ñu gis ne dafay bënn à tout moment fii ñu taxaw ni tey. ak fi mu bënn tey ji bokkul mais fi ñu taxaw ñu tey Sarr xam na place bi bu baax man sama kër ngi tëb fii daf si bënn ay yoon yoon bay génn suñuy robinet tey ji daanaka foofe ci caaro sur askan wi nag ñu ngi toog ci danger bu màgg looloo tax dañu yëkkati seeni kàddu dànkaafu nguuru Sénégal mu jóg ci mbir mi xam nga installation yi dafa yàgg ndax installation yi 62 ba moo jur suñu jub mm-hmm. le président son excellence Macky Sall moo jiite dëkk bi moo jiite Sénégal moom moo war jiitu ci xeex bi. ci fàttali situation biile daanaka du gulet ñu ngi koy nemmeeku ci gox bi ndax bari na nu mu fay amee tey ji ñu daal di gisaat encore essence muy génn ci benn kër ba tax na jaaxle ak tiitange lañ fi nemmeeku.